alhamdulillahi laka alhamdu xata tarda wa laka alhamdu isa radita wa laka alhamdu bada rida yi tey ñu ñëw ci ñaareelu jotaay bi ci njariñal fatiha fatiha ay njariñam dafa yemut ci àddina dong ba ci bis pénc ba képp koo xam ni jàng na fatiha mokkal ko man ay xarafam xam li yi tekki da mucc ci mboolem ay bis pénc yi ndax fatiha dafa doon njëlbeen gi dafa doon aw tagg ak kañ woo xam ni dafa jëm ci yàlla ndax ñeen ñeenti njëkk yi ñeenti aay njëkk yi arbaun minha sanaun alallah tagg la woo xam ne dafa jëm ci suñu borom wa salaatun minha duhaun awalu sanain ñetti ci des di aw ñaan ginnaaw tagg gi njëlbeenu tagg gi kon loolu njëriñi kese la te doomu aadama yi nii dañ la ci jox exemple boo leen doon bàkk ka kañ rek dañuy am yéene lu ñu am rek di la ko jox kon nag esemen suñu borom mi nga xam ni moo la bind moom la ndax nee nañ suñ maam aadama ba ki suñ bindee bi mu ci moom ak la mu njëkk def bi mu sëqatee mooy alhamdulillah te alhamdulillah googu aw cant la woo xam ni ku yàlla yooyowu ko moo tax sëriñ Tuubaa ni alhamdulillahi huwa almadhu bi kulli kamalin wala yastahiquhu ala alhaqiqati gayrullahi rabbil alamin huwa rabbuhum wa wa malikuhum wa xaaliquhum wa raziquhum wa muslihu ahwalihim xaalan wa maalan fadalan minhu laa wujuban alayhi mu doon loo xam ni itam njariñ la loo xam ni moom fatiha kenn mënu koo takk ka xiyaas ndax li tax ma ni kenn mënu koo takk ka xiyaas mooy njëlbeen gi lu mu wax aw tagg la woo xam ni ku yàlla yooyowu ko yàlla mi nga xam ni mooy seen borom mooy seenub sang mooy ki leen moom mooy ki leen bind mooy ki leen di wërsëgale mooy kiy doxal seeni mbir tey ak ëllëg te lépp ci coobareem la koy defee dara waru ko ci waxlam anna alfatiha mustamilatun ala sairu lxuruf maada sabxata ahruf manqutatin wa hiya aljimu walxaau wazaayu wasaau wazaau walfaau washinu juróom-ñaari xaraf yi yépp ñëwuñ ci muy arafu jiim ñëwut ci fatiha arafu xaalonk ñëwut ci fatiha arafu raasin ñëwul ci fatiha arafu cuun ñëwul ci fatiha arafu ci fatiha ci fatiha arafu shiin ñëwul ci fatiha yépp nag wa innama munia min ityaaniha fiha li annaha nazalat bil wahidi wa huwa asharu wa maana al jiimu li tax yi yépp itam ñëwuñ ci fatiha mooy fatiha ku ko mokkal man ay xarafam da mucc ci mboolem ayu bis penc yi mboolem ay yëpp di nga ci mucc moo tax moo tax ku ko mokkal mboolem ay yëpp di nga ci mucc bi ci bi ci jiitu mooy maanaal jiim jiim ma axoosun min a tajasi dafa yor baatub tajasi waxu baatub tajasi waxu asuqatu xalaa ni mooy sa ñaari bëti woom rot ci biir sawara la naari li qawlihi taala baatub tajasi mooy ay raakibiina ay saaqitiina fi rukabihim fi naar mooy doomu aadama bi ñaari bëti woo moom rot ci biir sawara baatub jiim loolu la yor maanaam yi loolu alquran alquran na ko wa nadaru zalimina fiha jusiya na nga bàyyi waytoo ñi ñuy woy sukk ak seen bëti woom ci biir sawara ki nga xam ni nag mokkal na fatiha man ay maanaam kooku moom mucc na ci waaw ki nga xam ni mokkal na fatiha xam li fatiha yi firi ci wolof wa baabitul fatiha wa maaniha la tusibuhu benn ay du ko jot max maanaam ji moo nekk noonu ñu ñëw ci maanaam xaa maanaam xaa ma xuusun minal xayba dafa yor maanaam mii firi xayba mooy sooy tasuk yaakaar li qawlihi taala wa qad xaaba man dassaaha mooy ña nga xam ni nuur nañ ci bàkkaar day perte nañ ba araf woowu dafa yor maanaam moomu moo tax ñëwul ci fatiha te xam nga ni fatiha ku mën ay arafam xam man koo tari mokkal maanaam tasuk yaakaar doo ko am bis penc waaw wa xaaba man dasaha xaabat wa xasirat nafsun afdahaha allahu wa baabitul fatiha wa ma aniha la tusibuhu xayba ki mokkal fatiha moom tasuk yaakaar du ko jot te xam maanaay fatiha ñu ñëw ci maanaam zaay maanaam zaay muy razin za maxuusun min zalzalati min zalzalati alqalbi li qawlihi taala wa zulzilo zilzalan shadida ak def na leen rëngi-rëngil ak rëngi-rëngi gu tara bis penci maanaam zaay loolu la yor alquran ko na ko zulzilo zilzalan shadida lim na ma ci loolu mooy zulzilo zilzalan shadida ay taxarrakoo taxrikan shadida mooy yëngatu yëngatu gu tara tara tar wa daabitul fatiha wa maaniha laa tusi laa tusibuhu zalzalatun ki mokkal fatiha man ay maanaam moom wenn rëng-rëngi bis penc du ko jot mooy zalzalatul qalbi fil axira mooy rëngi-rëngi bis penc ca alaxira ki mokkal fatiha xam li fatiha yi firi rëngi-rëngi yooyu du ko ca jot kon ba tey mu mel ni baatub saa ci la saa gi firi cuun arafoow di cuun ma xuusun minas minas fubóor yi moom dafa yor ci baatub fubóor gi firi tuskare maanaam moom la moo tax ñëwul ci fatiha ndax fatiha ku ko mokkal man ay maanaam doo gis wenn tuskare bis penc ndax way tuskare huwa alwaylu li ann ahli naar dañuy wax naan dañuy yëkkati seen kàddu naan bil wayli bil wayli yu naa doona yaa waylahum li qawlihi taala dañuy wax ni yéem naa wile tuskare daat ni laa taddoxal yow ma subora ay wenn tuskare wii suñ borom ni leen kat waddoxo suboran kasiran woo leen tuskare yu bëri bu leen woo benn tuskare ndax tuskare yu bëree bëri di leen ñeel ki mokkal fatiha xam li fatiha yi firi moom tuskare yooyu dana ci mucc ñu ñëw ci maanaam sa maanaam za za mooy taat gu tooy loolu maanaam mi mu yor mooy lëndëm mooy tooñaange maxudun min az-zulmi li qawlihi taala wala tazidi zalimina illa tabara na nga bàyyi way tooñi ñuy way alku maanaam moomu la te xam nga ni ku mokkal fatiha man ay maanaam du alku tuskore du ko jot bis penc loolu mooy maanaam euh, tàddara gu tooy gi li tax ñëwul ci fatiha araf yi ma jot a lim yëpp benn ñëw ci ci fatiha ba pare baatu fa fa li tax ñëwul ci fatiha ma xuusun minal firaar yi dafa yor maanaam daw te bis penc ku mokkal fàtte xam ay maanaam amul amoo wenn tiitaange way def di daw ndax alquran andi na ko falam yaziduhum doa iya illa firara suñ borom da gis way daw ñi du leen dolli lu dul du leen du leen du leen dol seen seen bu leen wooyee du leen dolli lu ak daw te xam nga ni ak daw musiba la te bis penc ku mokkal fatiha man ay maanaam daw ngir tiitaange yooyu danga ci mucc kon ba tey maanaam xaa muy xaalonku li tax ñëwul ci fatiha dafa yor maanaam xusraan gi firi perte ndax alquran andi na ko wala asri inna linsaana la fii xusrin su borom nee na giññaa ci takkusaan wala giññaa ci jamono ni day nit ñi day perte gu rëy ñeel na leen daan ni innal kaafirina la fii xudrin azim waaye ñu weddi moom perte gu rëy rëy moo leen ñeel ki nga xam ne mokkal na fatiha xam ay maanaam nag perte googu dana ci mucc looloo tax baatu xaa ñëwul ci fatiha arafu Euh, ku man fatiha man ay maanaam nag euh, euh, perte googu du la ñeel bis penc la yusibuhu xusraanun fil axirati ñëw ci maanaam siin maanaam siin moom it li tax ñëwul ci fatiha dafa yor maanaam ay ndax ku ko mokkal man ay arafam da mucc ci ay alquran andi ko tarmi bi sararin kal kon ki nga xam ni mokkal na fatiha xam ay maanaam Ah, ah, ay yooyu dana ci mucc ah, tiis yooyu itam dana ci mucc moo tax sëriñ bi ni wa daabitul fatihati wa maaniha la yusibuhu charrun fil axira ki nga xam ne mokkal na fatiha wenn ay wenn ay wenn ay wuy lore du ko jot foofee ca bis penc te itam suñu borom dana ko dimbali te itam borom dana ko defal tawféex bu baax a baax a baax a baax kon dañuy gis ni fatiha ay njariñam yëmu dong ci ay mbiri àddina dafa ñëw ba ci nit ki ay njariñam yim mën a yim mën a am ngir àddina ak njariñam yim mën a am ngir alaxira kon dañuy gis ni fatiha ki ko mokkal xam ko xam ay njariñam mooy saadatu daaray neem mooy taxik addunaam ak gu alaxira wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin